retrouver ami fidèle euh, internet de Kawtef Sénégo ñu ngi taxaw ki nga xamante ni nag moom mooy euh, Liw Faramareen turam dëgg nag ñu gën ko xam ci Aliou Sow ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay. ñu ngi lay ziyaare naka suba si. waaw ah, suba saa ngi nii rek. Euh, bon dañuy ñëw directement rek si li nga xamante ne tey moo ñu fi ci par rapport ak vidéo bi nga xamante ne mu ngi def euh, euh, toile si li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi ñëpp a ngi ciy wax ba sax ñi nga xamante ñoo nekk si milieu showbiz ñu gën leen si ràññee ñoom itam seen tour ñu tudd ko si déjà kidnapping bi nga wax dóor yi nga xamante ne dóor nañ la ko ginnaaw bi nga bañ nee la rek da nga nekk di saaga ki nga xamante ne di Wally Ballago Seck di Fara Marine déjà dañoo bëggoon a xam rek kidnapping bi nan la. demee yow da nga doon génn di doxantu ji est-ce que mën nga ñëw retracer lu ni mel. balaa may ñëw si kidnappé damay nuyu sénégalais yëpp di ziar ñëpp ndax démb ba léegi maa ngi gis appel yi gars yi may woo xam nga samay xarit ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar mais balaa may ñëw foofu damay expliquer sama diggante man ak Sidi. ak tamit li tax ma jógee fee tamit dama koy expliquer. Sidi Diop waaw. laataa loolu ñëwal dinañ loolu yëpp dinañ ci dellusiwaat kidnapping bi retraçage bi loolu moom démb la woon démb samedi bi ndax dama amoon envie dem seetaani ñoom sii di fi ñuy joué muy foot mooy foire quoi muy Sénégal Japon falaa demoon démb di leen seetaan ma jóge foofu affaire bi mu jeexee am benn waay bu ñëw ba ci man idaali xawma idaali mu ñëw ba ci man idaali mi ànd ak moom moo ñëw ba ci man nee ma liw dama la bëgg defal benn interview ma ne ko ah loolu la ma ne ko amul benn problème si la jékki-jékki mu ne ma nañ dem si bitti ñu dem si bitti am waajum woo mu ne ko batterie bi essence yi dafa vidde xawma ma ne ko ah waaw mu ne ma léegi jox ma sa numéro si laa ko joxee sama numéro si laa ne di dem may ñëw di arrêté taxi bi may arrêté taxi noonu si lañ ñëwee Idaali ak euh, délégué Amar ak cinq gars man ñooñu nag xawma leen ñu ñëw dóor ma pompe à gaz dugal ma ci biir oto bi biñ ma yóbbee nag man xawma nag fu ñu ma yóbbu man l'essentiel jékki-jékki yeewu naa ñu toog ak man ñu commencé wax di ma dóor ba am na weñ buñ ma dóor fii nii ak sama tànk bi fii mm-hmm. lu amul waaw lu amul waaw lépp laa bëgg mu mm-hmm. doon lu leer mu ngi nii mm-hmm. ñu dóor ma ko ñu ne di ma wax naan ma lu tax ngay nekk fii di wax si waale ñoom boobu ñu ma koy wax léegi nag Euh, jarul jooy jarul joy jarul jooy massa euh, métti na lool nit koo xamante ne euh, yaa ngi dox même bu dul da nga tooñ sax nit warul nekk di toroxal li nga xamante ne mooy moroomu nitam métti na loolu mais da ngay dëgër la te xam ne góor nga amaan itam nattu boo xamante ne am na te milieu showbiz moo mel moo nekk li nga xamante ne dafa xaw a daal di doy waar te boo si xasee ba dugg rek mën naa ne lii yëpp danga ko si da ko siy xaar lu si lu si lu si bëree. man après si laa toogee noonu ñu teg ma paaka. commencé maa wax waxal ne Umaro kii nu mu tudd xaw ma ko mataar Matar. Matar Subatel Matar Diop. Matar yàlla def na sax man xaw ma ko ndax mosuma gisante ak moom ñu ne ma waxal mataar moom moo la yónni moom moo la wax na saaga waali Seck te man yàgg naa nekk si ñoom man xam naa li fa nekk man yàgg naa toog ñu may ñu naan carrément man du affaire nag interview bi pour jaxase Waly ak siidi ndax man ñoom ñaan ñëpp ñoo yem ci man. peut-être man Sidy dama ko bëggal sama bopp ndax dafa am ci man yëg-yëg lu nekk defal na ma ko sama àdduna barki Dembo Ndiaye fii laa dem Sénam mu yëkkati iPhone 13 ah ak euh, xaalis bu bëri teg ko sama loxo léegi nag bi ma yeggee léegi ñoom ñu naan ma waxal ma taar moom moo la yónni léegi ñu teg ma. ñoom Ida lekk délégué ñoom ñoo la ko wax loo. ak cinq gars tamit yu ñu àndal. donc ñoom Idaali la délégué Amar ak 5 gars yoo xamante ne xamoo leen. xamoo leen léegi nag foofu amatuma choix amatuma loo xamante ni si damay nekk fii di ko lës lësal ndax yaakaar naa jamono yonent bi am na koo xam ne moo ñu gënoon a gëm fuuf biñ ko tegee paaka nee ko weddil dafa weddi si laa waxee mataar moom moom moomu yónni si paaka bi biñ ma teg ak dóor ma doon dóor weññeeg yooyu noonu. bakkan nga doon sauvé. waaw sama bakkan laa doon sauvé ñoom nag jël nañ sama iPhone 13 bi ma siy di jóob jëndaloon ak plus de 200000 mais man loolu. d' accord métti na loolu mais li nga xamante ne moom moo xaw jaaxal sénégalais yi ñu ko doon laaj mooy euh, liw Faramareen bañ na ko ba dañ ne Faramareen liw mooy Aliou Aliou Faramareen ñu gënoon loo xam si li nga xamante ne moom mooy euh, bëgg Wally Ballago Seck lan moo waral transhumance bi. ndax yaakaar naa nit ki fi nga nekk boo fi gisul sa bopp tamit da dem feneen ndax yaakaar naa man ak Wally ñoo doon ànd ñooñu ñëpp xamee nañ ma ko mais sii di dama dem bi muy ñëw Louga. dama dem si kaw seenam ma am benn xaritam bu ma doon déggal muy Ismo moom moo ma ñëw ma ñëw mu expliqué ma mu ne ma tey Sidy day dóor Louga ndax man Louga bi sama man yéex naa kaa yëg après si laa ñëwee noonu ñëw yëg si seenam Sidy xoolul ni faramaaren laa xoolul dara borom xool bu rafet la bu ko neexoon ne kii faramaaren yàgg na maa saaga ndey mais xoolul loolu lépp dafa maa yéegal si kaw seenam way ma may ma xaalis ñu ne déeta waay ñu ne est-ce gars yi naan Sidy instant li nga ñëw Louga moo tax sa dëkk ñu ne déetawaay ma ñëwaat conseiller am fii nii euh, five ma ñëw foofu léegi mu yéegalaat ma ba pare ma am cofeel boo xamante ne si mënuma laa expliquer sa si moom ndax man fooguma ne woon Sidi nii la mel ndax man ay nit ñoo xaman ñu ngi nekk si faramaar yàgg nañ maa expliqué naan ma Sidi nekkul nit ku baax man li ñuy wax bu nekkee weddi mën naa jël ay audio woon leen ko. ay njëgënjaale Wally Ballago Seck ñoo la doon wax loolu. ñoo xam ñu ngi naan ma Sidi nekkul nit ku baax. waaw mais loolu lépp man xooluma loolu léegi nag damaa dem concert am five ma yegg mu yëkkati iPhone 13 loolu seen kanam yéen ñëpp ñëpp seetaan nañ ko mu yëkkati iPhone 13 jox ma ko xam ma jëlaat tamit xaalis bu bëri jox ma ko léegi nag yàlla boole ma ma ak ak moom yàlla def mu bëggal ma boppam man tamit aussi mu bëgg ko ba man awma ci moom sago ba man jamono ji ku ko laal daf may laal. d'accord dogguñu la mais yaa ngi doon wax sa biir kàddu que li nga xamante ne moom mooy si euh, ba nga nekkee si wàllu si su sa bopp est-ce que nekkul tey jii li la teraanga bi nga xamante ne moom la la euh, euh, kii di Sidi Diop defal moom moo tax nga viré si moom. non du affaire teraanga sax du affaire teraanga ndax man. yaakaar naa yàgg naa si waali bu nekkoon teraanga kon foofu la ëppee ndax xam ngeen waali nee ngeen waali day maye chaque jour. est-ce si teraanga yi. non maa ngi doon jot man maa ngi doon jot si moom xaalis mais man Sidy yàlla def na dafa am ci man yëg-yëg gël ma boppam ma gis li muy def defal doomu aadama di jour bi may jox téléphone ba léegi nii kenn gisul ma wane téléphone ma ne téléphone baa ngi nii billaahi wallaahi taalaay dafa ma ne liw lu ma def mën a defal doomu aadama bugguma nit di ko wane damay def te yàlla tax billaahi wallaahi taalaay nii Sénégal barki démb lu tax ma wone ko damaa dem ba ci biir mënatuma téye sama bopp ndax damaa ne kii de li ma defal du ma gën a gore mais daf ma wone ma liw bul génne matériel yi te matériel yi mu ngi ko jënde plus de 400000 billaahi wallaahi taalaay te man bi ma commencé ànd ak moom yàggul yàggul kon boog man te man yàgg naa toog ak ay nit tey ji bu ñu taxawee naan liw waroo saaga waaye liw ak lii ak lii man yàgg naa toog ñoo xam ne ñu ngi ko jege toog ak moom man mën naa laa wax kii ak kii ak kii mën nañoo yàgg nañoo toog ñu ne ma liw moo la poussé ngay saaga waale. sa propre gré la. du pa man ba yà ba yàlla def na mosoo leen ma dégg ma sa tudd turam man lu ma wax wax man déggoo leen ma tudd turam kon gars yi waruñoo taxaw naan man waali laay saaga mosuñoo dégg ma tudd aada moo moo génn saaga ma boole ci siidi ma génn saaga ko man ba tey déggoo leen ma tudd turu waali léegi nag nit ñi ñoom ñooy taxaw man li ma dem ci siidi da leen di déranger. man loolu jàpp naa ndax ku nekk mu may woowee fu ne di leen a déranger démb nag yóbbu nañ ma si Alioune Seck Alioune Seck yóbbu nañ ma ci moom mu wow Waly Seck mais jotu ko mu ne ma léegi. boo frère Waly Seck bi waaw. mu ne ma léegi boo xëyee suba léegi da ngay ñëw fii nii nu mu tuddati kii moo la fay indi Arma Ndiaye moo moo la fay indi bu la fa indee léegi ñu dem ba ci Waly Waly dina la defal loo xam ne Sidi mosu la kaa defal xam nga loolu nit bu la koy wax mooy dañ la bëgg a récupérer def la seen wet est ce ma la ñoom tey jii dañoo jël koo xamante ni si nit àdduna kenn bëgg ko. yow da nga jë doguma la euh, Aliou da nga jàpp ne ñaari camp yëpp objet lañ la bëgg def ku si nekk bëgg a xëcc jëmale sa boor. léegi man damaa xam siidi man musuma siidi musta taxaw mu ne ma waxal si diw barke alquraanu karim siidi musuma wax mais man damaa man ñee dama leen a xam ndax nekkuñ nit ñu baax ndax bu nekkuñ nit ñu baax duñ ma taxaw naan saagaal diw man siidi musuma déggante moom mu ne ma saagaal diw wala waxal si diw mësta am billaa wallaahi Sidi chaque jour bu may daf may toog di may yedd naan ma liw booy def sa àdduna defal lu baax billaa wallaahi musuma taxaw mu ne ma saagaal diw wala mataar mataar sa yàlla def na man xawma ko sax man mataar xawuma ko ñu dend Sidi tamit kenn musuma taxaw ne ma saagaal diw mais ñeen kañ laa xam ne duñ nit ñu baax buñ taxawee naan la saagaal diw waaw boobu laa xam ne ñii duñ ay nit ñu baax man nag li may wax nag leen la Sénégal gi yëpp seetaan na seetaan nañ vidéo yi man nag yoon dina def liggéeyam damaa am ay ay ay mbokk ndax ma du ma nekk si ab dëkk boo xamante dañ naan ma carrément doo génn boo génnee ñu rey la ay menaces yoo xamante ñu ko fenn te dëkk bi dafa am loi bu nekkee nag alalu àdduna lañ yaakaar wala doole dëkk bi dëkk bi du affaire u xaalis du affaire dala affaire bi loi la waaw man nag dinaa dem si yoon def sama plainte ba lu ma yoon may rek mën ma jël dañu ne dañoo dégg itam yow yàlla ne da ngay plainte mais dañoo dégg itam ñu ne kii di Matar Diop Soubatel moom itam dafa nar a euh, déposé li nga xamante ne mooy plainte am euh, si suba rek déggante nañ ak moom téléphone ba muy confirmer ñu li nga xamante ne mooy lu nu mel. waaw mataar tamit bu dee day déposé plainte yoon la ndax tamit nit toog menace yoo xamante ne si teguñu ko fenn di ma wax loo naan ma waxal ay Matar lii ak lii man tamit ma. taxaw wax mataar lii ak lii loolu tamit loo xam lu ma metti la loolu lu ma metti la man mataar xaw ma ko sax man Matar musuma kaa gis musuma xaw ma kuy Matar man damay dégg nag peut-être damay dégg turam gars yi di ci wax mais man xaw ma kuy Matar waaw nit ku siiw la mais man musuma kaa teg bët xaw ma ko su ma ko romboon nii si met du ma la wax Matar a ngi nii. ñu jeexalee rek si li nga xamante ne moom mooy euh, délégué Amar moom itam euh, wax nga wax nga si ay waxam euh, si benn vidéo nga ne moom si boppam moom moo la nappe si ñi la kidnappé si la bokk si sa vidéo bi nga mujjee génne yaa ko wax ba ñu sa yére yi xotteeku si ba ñenn ñi sax naan yére yi gisuñu mu am benn trace koo xamante dañ ko malmené dañ ko dañ ko dóor dañ ko toroxal ndax dafa xaw a set dafa clean dafa mel dañoo jël t-shirt bi rek xotti ko noonu délégué amaana bañ ko jotee nee na yow en personne yow yaa xotti li nga xamante ne moom mooy euh, yére bi toog wax léegi nag li ni mel ban ban réaction nga siy am lan nga siy leeral parce que délégué Amar actuellement mu ngi lay dégg en direct xam nga lu amul lu amul seede neexul yàlla def na ne sax am na vidéo boo xamante démb bañ may dugal si oto bi man vidéo boobu dama jékki-jékki ñu envoyé ma ko mais boobu aw ko woon man man de man man man man man man vidéo boobu aw ko woon man délégué sax man dama amul lu may wax ak moom ndax ma nekkul nit ku baax ndax bu nekkoon nit ku baax tey ji bu bu ak nu mu mën a demee bu nekkoon doomam lañ romb si met di ko kidnappé am loo xamante ne si du ko nangu ngay kidnappé di kidnappé man awma lu may wax ak moom man kii aw délégué awma lu may wax ak moom man yàlla def man délégué awma lu may wax man lu may wax ak moom man yéen laay waxal tontuwuma ko lijjantuwuma ko man xawma sax est ce que mu ngi fii si si maa ngi koy gis dama lay wax man yàlla na ne xotti nañ sama yër dóor nañ ma dóori met nañ ma feer man nag dinaa dem si yoon dinaa dem si yoon lu ma waaw waaw lu ma yoon may tamit ma jël def nañ ma samay menaces loolu laa amoon lu may wax man awma lu may wax moom wasalaam. délégué. mu mel ne na rek dégg nga li nga xamante ni moom mooy euh, Aliou Sow ñu gën ko xam si Liou Faramareen. gis mhm. yaa ngi en direct de. Mhm. gars yi dinañ ko duma duma yu métti te ñooñu xaw ma leen moom am na am na benn vidéo bu ma gis ci internet boo xam ne am na ñu ko njëkkoon ak kar. Mm-hmm. ñoo ñal la poñe ko ko saaga. Mm-hmm. ma ñooñu. Mm-hmm. mais lii démb damaa jóge terrain yam ci. man ku ma fekk may kidnappé doomi jàmbur wala di dóor doomi jàmbur lu may wax. ay seede man Arma ñoo àndoon. te bi ñu àggee yi dama ne leen booy kii bu leen ko dóor bu leen ko def dara. moom moom boppam lu ko neex na ko def waaye na arrêté ay saagaam rek. moom ci boppam moo ma moo ma dimbale ne ma délégué jàppale ngir yàlla bàyyi dimbale ma génnee ma fii. Mhm. mu téye sama mbubu bi. Mhm. ma ne ko bàyyi sama mbubu bi mhm, looloo ma ciy indil problème man loolu moo tax ma dugg lu baax moo la si jublu woon est-ce que nekkul jàppoon ni tamit xelum xale moo ko jàpp dong. ak tamit pression bi ñaari camp yi ku ci nekk bëgg kaa jël jëmale ko ci sa boor. moom moomu bi ma biñ ko biñ ko yóbbee fee mën na ko koy dalal fii kenn du la def dara ku la dóor ku la neex nga porté ko beneen kenn amul droit dóor la mhm. mu ne ma yow délégué ci boppam man dama laa yàgg siiku keroog bi ma ñëwee Bambey yaa ma dugal jox ma ticket affaire yooyu noonu ma ne ko loolu yëpp sama frère nga comprendre nga man xaw ma sax yow da ngay yooyu mhm. mais su ma yemul ci lii dina bu mhm. baax comprendre nga après moom ci boppam moom booy daal ne ma instant bi délégué dama bëgg liggéey affaire yi ma ne ko man dinaa la jàppale xooluma nga nekk suba dee la nga nekk faj faa man lu ma man ci yow dinaa ko jàpp boo soxlaa xaalis boo ma woowee mën naa mhm. demee mu jox ma benn numéro tigoom mhm. ma wutal ko ne ko am jox ko xaalis ne ko demal nga demal demal nga paas nga dem sa yoon mhm. Armand dugal ko ci otoom yoobu la affaire bi demee ci sama côté d'accord d'accord comme moom bu demee wëlbatiku ay xotti ay yéreem dagg boppam naan dañ ko doon dóor dañ ko doon man nang loolu yëpp c'est faux man bokk ba may taxaw kenn dóoru ko. kenn laalu ko kenn saagu ko kenn defu ko dara. te vidéo bi moo vidéo bi bi ma gis gars yi dugal ko noonu idaali dugal ko. Mhm. moom ci moo ni idaali jël ma vidéo ma def vidéo baalu ak sénégalais parce damaa def moom moo ko mais daa am benn vidéo boo xamante ne dañ koo jot ñu nitam mu am mu doon loo xamante ne rek yow si boppam yow ñu bañ ko doon tañax tañax di ko dugal si oto bi yaa ngi sol li nga xamante ne mooy baylaat bu bula baxa. non voilà non non boobu Mm-hmm. moom mu moom mu jàpp sama yére ne ma Amar dimbali ma ma ne ko booy ko dugal ko bu leen ko forcé mm-hmm. après bi man ci laa lépp dugg sama oto d'accord ko ñu ama avancé yóbbu waxtaan ak moom mais mbirum yoon mu ngi siy dugg itam mbirum yoon mu ngi siy dugg ñu cité ci ah, sa sa tur d'accord mais dañ si cité sa tur délégué délégué ku naan Matar suba teel na ma woo na ma def ma ay menaces saaga ma ndey lépp maa ngi enregistrement yi sama téléphone. Mhm. envoyé naa ko samay avocat mhm. comprendre nga. Matar Subatel en personne moo la woo def si suba. en personne déedéet ci guddi gi. Mhm. ne ma daf may fekk si fi ma nekk pour ray ma man maa ngi sama ay audio maa ngi sama ay lépp. menace de mort ne ma fu ma fekk dina ma gaañ. d'accord d'accord léegi man li def nii je maa ko dugal sama oto mais bi ma koy dugal sama oto pour jëlee ko foofu la woon. pour sauver ko. voilà def lu ko taxul woon ma dugal ko sama oto. d' accord dama koy assumer. d' accord. voilà ñu ngi lay jaajëfal bu baax si leeral yi du dinañ amaat beneen euh, jotaay gën a leeral léegi si li nga xamante ne moom mooy mbiru euh, Aliou Sow bi ñu gën ko xam si Aliou Faramareen ginnaaw li nga xamante mooy ay plainte mu ngi si daal di dugg. d' accord amul ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup. voilà amis téléspectateurs wala internet yu Kawtef lii moo nekkoon seen interview bu leen doon euh, jagleel ngir leeral mbir mi nga xamante ne moo dox ci diggante liw euh, euh, Faramareen turam dëgg di Aliou Sow ah moom rek nga xamante ne dañ ko daal woon woon kidnappé gis nañ video yëpp ci réseaux sociaux donc dañ leen di jox dig daje très bientôt incha allah d'ici d'ici là restez en compagnie de nos programmes merci.